Deux secondes, deux secondes. Non, venez là, venez là, D'abord, je tenais à vous remercier parce qu'aujourd'hui, le 13 octobre, date de renvoi de l'audience euh, de cette affaire qui m'oppose au maire de euh, Sacré-Cœur Mermoz, euh, M. Euh, c'est le troisième renvoi qu'il sollicite. Je pense qu'il faut arrêter de jouer avec la justice et d'essayer de narguer la justice. Vous vous souvenez tous que lorsqu'il émettait ses propos injurieux, diffamatoires, publiquement devant la télé, réitérés à plusieurs reprises, des propos diffamatoires et injurieux, il disait qu'il était prêt et qu'il me revenait si j'avais le courage et que si j'étais garçon de porter plainte et qu'il était prêt Quand on insulte, c'est également être prêt à répondre devant le tribunal. C'est la troisième fois que je viens personnellement à l'audience alors que je ne suis pas tenu en tant que victime de comparaître. C'est un délinquant qui doit comparaître. S'il ne le fait pas, un mandat d'amener peut lui contraindre. Et voilà que la première audience qui s'est tenue au mois d'août, il a sollicité le renvoi, constituant un avocat qui était présent. À la deuxième audience également, pareil. constitué un deuxième avocat. Aujourd'hui, il en constitue un troisième, juste Mais je pense que le président a une sage décision aujourd'hui. Parce que moi, j'ai confiance à la justice. Pour des droits de la défense, Mais c'est le dernier renvoi, c'est écrit noir sur blanc sur les papiers, au parce que quand même, avec l'humour, ça ne prend pas beaucoup de temps pour venir Ça ne prenait pas de temps pour faire une plainte. On l'a fait. Mais ça ne demande pas aussi autant de temps pour courir. Mais tôt ou tard, il viendra répondre de ce qu'il a dit, ce qu'il a soutenu. Parce que quand même, nous sommes dans un pays démocratique où la liberté de chacun s'arrête ça commence celle de l'autre. Il n'est pas permis, je dis bien dans un pays démocratique, d'insulter impunément les gens alors que vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites à la témérité. Je préfère être courageux que d'être téméraire. La raison aujourd'hui, il a encore fui. Et je pense qu'on va attendre le 24. Vous pensez qu'il manque de courage Il n'a pas de courage, je vous dis. Vous savez, les showman, là, c'est dans la rue. Mm. Ici, c'est pas du show. Mm. dans, le tribunal, j'ai enlevé mon bonnet. Pour respecter. Je sais ce qui se passe, je le dossier, que nous avions une fois sollicité le renvoi et qu'on n'aurait pas communiqué la citation. La citation, on ne la communique pas, on la notifie. Il y a de ces avocats qui ne connaissent même pas leur métier. Ça a fait sourire le magistrat. Euh, euh donc, euh, maître, maître, l'actualité oblige. On a entendu euh, le député Doumouroussao donc euh, interpeller, euh, appeler les gens quand même à défendre le troisième mandat du chef de l'État. Quand, quand, quel commentaire vous en faites Certes, je suis là pour une affaire judiciaire. Moi, je pense que, vous savez, si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Je profite de l'occasion pour être bref, pour condamner ces propos. Fermement. Fermement, je dis bien. Le Sénégal ne mérite pas cela. Et il revient maintenant aux autorités de prendre les responsabilités, surtout judiciaires, et le parquet de prendre les responsabilités. Comment on peut appeler à la haine, à nous faire souvenir de ce qui s'est passé au Rwanda, uniquement pour des problèmes de dire je conserve le pouvoir Le pouvoir c'est Dieu qui le donne et qui reprend. Je me limite là pour le moment. Euh, Laissez-moi faire déclaration de patrimoine déjà, parce que c'est une obligation légale à l'OFNAC. Et une fois que ce sera terminé, vous m'entendrez. merci merci à vous jërëjëf bon maa ngi leen di gërëm di leen tey ñu ngi ci le 13 octobre 2020 nga xam ne date boo xam ne la dañu renvoyé woon li nga xam ni moo ma opposé woon ak li ki nga xam ni mooy monsieur Barthélémy Diaz maire euh, Sacré-Cœur Mermoz xam ngeen ni euh, génnoon na di wax bu fekkoon ñeme woon na moom mooy porte plainte Sénégal boo dans un pays de droit bu fekkee am na lu la metti wala d'accord ci wala nga considéré ne infraction yow yaa war a dem tribunal mais man maa ko yóbbu tribunal d'ailleurs dafa dem ci télé bi dégg ngeen koy lépp c'est prouvé et ces images là sont entre les mains du président la du président du tribunal mu ne lan Moussa buy góor Moussa Diop bu ñeme na dem porte plainte et ça ne prend pas de temps pour porter plainte man joxuma ko plainte Sandaga moom mu gisee plainte bi la xam ne dafay reculer mu demande renvoi pour une première avocat nga woon taxaw mu ngi taxaw mu demande war renvoi une deuxième fois constituer deuxième avocat comme si ça ne suffisait pas pour le premier peut-être n'était pas bon selon lui ñu ñëwati tey mu demande waat troisième renvoi constituer troisième avocat quand même boo amee sañ-sañ di saaga publiquement à la télé di ko teere plusieurs fois di diffamer mooy di wax loo xam ne wóoru amoo ci preuve war nga am sañ-sañ tamit ñëw wuyu buñ la wooye mu ne pare woon na pour dem xeex man maa barewul woon su ma amee fit naa ko def mais man def naa ko à temps et je pense que le président aujourd'hui du tribunal jël na décision nee na bii mooy dernier renvoi mi ngi ko renvoyé au 24 novembre yéen ñi nekkoon ci biir salle bi gis ngeen je me suis ba jàppanteeg avocat am parce que avocat am bi fi ñëw tey lu mu wax dafa reeloo sa président bi dinaan ñun nga xam ne ñun ñoo def citation bi woo ko mu ñëw tribunal communiqué wuñu citation bi bu ñu ko communiqué woon naka la ñu def ba ñëw fi ñoom di demander renvoi sinon le magistrat aurait demandé depuis longtemps nañu génne citation bi citation du ñun di ko communiqué bu xamul droit citation di nga koy notifié ba ñu ko yóbbulee mairie dafa daw plusieurs mu jël garde corps am teg ci suuf nee na nekkuma fi ñu jël citation bi conformement au droit yóbbu ko à la mairie de Dakar ñu notifié ko jot na ko depuis longtemps. da nga jàpp ne ñemewul. gis nga ñeme ci mbedd la. showman ci mbedd la. Mhm. ñun nekkuñ ci show fii affaire justice la da ngay ñëpp xam fi ngay yem boobu ma duggee ci salle bi dama dindi sama mbaxane teg ci suuf jox ko agent yi parce que xam naa lu kii donc ba mu waxee daja le magistrat était très souriant di ko naan mais xam nga ne yooyu taxawul ay n'importe quoi lay wax mhm. tey sax ñëwul dafa daw.